Mouride TV askan bi yëpp la fi nekkal parce que jege na chauffeur si jege na commerçant yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal si kaw ca kanam ci lu baax daal. wa ala kulli wa ala kulli haal askurukum jamian ala hada al muxaadara. koy def ci Mouride TV mooy ñaanal leen te encouragé leen ci li ngeen di demee ni parce que lii lu am solo la. billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير قديمه وكل من تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين وجه الكلام راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جنابون سنتي ba nu sante suñu julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant a Sayxul Xadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom dëgëral ko te kattanal ko te wéral ko te defal ko mbooleem xolafaaw yi nga xam ni ñoo wutu mag ñi fu ñu fi mën a nekk ci réew mi ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew mi yëpp dellusiwaat nañ fii ci seen télévision Mouride TV fas ne ànd ak yéen ci benn palaato spécial boo xam ni dañ koy jëmale ci soxna jaaratullahi maam maryama radiyallahu anha ngir waajale ko bis bi nga xamanteni mo nek suñu kanam muy bisu poroxaan su ko defee nag luñu fassiyene waxtan inshallah taala dinañ ko tënk ci ay tomb yo xamanteni ni yu ko la tomb bi njëkk dinañu waxtane soxna jaar radiyallahu anha digganteem ak sëñ Mbàkke mo rada Sali radiyallahu an loolu moy tomb bi nga xamanteni ni moo njëkk ñaareelu tomb bi dinañu waxtane itam euh, soxna jaar ak sammu gi nga xamni ni moom la sàmm woon boppam ñetteelu tomb bi dinañu waxtaane soxna jaara ak ni nga xam ne noonu la daan dimbulante ak ñi nga xamante ni nii ñoom la nekkandoloon ñeenteelu tomb bi daan waxtaane soxna jaara ak ay jikkoom yu sell yu mag yooyu nga xamante ni moom la yore woon mu mel ne kon tomb bi njëkk bi nga xamante ni moom la ñu njëkk a waxtaane te soxna jaara digganteem ak sëñ Mbàkke Mor Sali radiallahu an bu ñu demee ci alquran danañu fekk suñu borom subhanahu wa taala di wax ni ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه سوني بروم داي واخني نيال لين يين جيجين ني لو ملني خامني مو وار تي غور ني ني دافال لين كوتي اك نجيك لو ملون تام لين تي يين نين دفل كو نيغا خامتاني نيوي غور ني وا سوني بروم كيني نيال لا نيغا خامتاني نيوي غور ني تي يين جيجين اي درجه كون اي بوبو دا فاي نيال كين كو نيك تي نياري واي دنجنتاي te mooy soxna si ak ki nga xamante ni mooy boroom këram ay xaq yoo xamante ni am na ko ci moroomam loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj googu nga xamante ni <clears throat> moom la defoon te ñu koy tudde aju tàggatoo ba dañu doon wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ala inna lakum ala nisaikum xaqan wali nisaikum alaykum xaqan mu ni yëgal ni ñeen la leen yéen ñi nga xamante ni yéenee góor ñi ci seeni soxna ay xaq kon yéen góor ñi am ngeen ay xàq yoo xam ne seeni soxna ñoo leen ko amel waaye yéen jigéen ñi itam ñeel na leen ay xàq yoo xamante ni góor ñi ñoo leen ko amel kon soxna jaaratullahi radiallahu anha nekkoon na koo xam ne ku xamoon loolu la muy li nga xamante ne daf koo war ci digganteem ak sëñ Mbàkke Mor Anta radiallahu an waaye yemudoon nag ci xam gi waaye dafa nekkoon koo xamante ni ku daan jëfe loolu la loolu moo tax bu ñu demee ci eh, sëriñ radiallahu an ci mbindam danañ fekk muy wax ni moom soxna jaar lay mus la julli te jàppul muus la werdu te ñaanul door xëy sangam tuubal daal di wër këram buubal nga xam ne kon moom soxna jaara bu xëyee li muy njëkk def mooy day jàpp waaye su jàppee ba noppi la muy def mooy dem jooxe waxtu wi nga xamante ni suñu borom daf ko ko gàll mu dem jooxe ko waaye su noppee nag werdu bu noppee daal di taalal ay yoxoom boromam daal di ñaan bu noppee nag la muy def mooy dem ci sëñ Bàkke Mor Anta Sali radiyallahu an dal di dem saafaante ak moom waaye nuyu ko ba noppi itam tuubal ko wëlbatiku nag daal di buub la nga xamante ni mooy kër ga ba mu set ci kon loolu du an doonoon taxawaay bu am solo boo xam ne soxna jaara dafa ko daan taxawe ci digganteem ak kooku nga xam ne moom la ko yàlla bolloon muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu an daan tënku itam ci li nga xamante ni mooy ay ndigalam te musta jaar ci lenn loo xamante ni sëñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu an daf ko koy tere euh, waaye lépp loo xamante ni war na ko daal ci ay xaq yoo xamante dafa dox digganteem ak moom mu bàyyi woon ko xel te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci benn hadis boo xam ni Seydina Ali ibn Abi Talib bin karamallahu wajha moo ko soloo dafa wax ni dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni law law anna imraatan tabaxat zadiyayha wa anhamtuha ala sawjiha ma adat xaqahu Seydina Ali dafa wax ni dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni su fekkonte ni jigéen day dafa dagg li nga xamante ni mooy weenam jox ko ki nga xamante ni mooy borom këram mu jëfandiku ja lu tax sax mu jooxe li nga xamante ni mooy xaqam kon mel na ni dafa am euh, ay xaq yoo xamante ni moom soxna soosu da ko ameel ki nga xamante ni mooy borom këram moom soxna jaar nag ku xamoon loolu la lool bàyyi woon ko xel moo kon mu taxawaa mu taxawoon ci taxawaay bi nga xamante ni moom la ci taxawe ba suñu borom nag defal ko li nga xamante ni nii moom la ko defal lépp kon loolu lépp day tegtale taxawaay bu am solo boobu nga xam ne moom soxna jaara radiallahu anha amoon na ko waaye beneen tomb bi ci des te mooy soxna jaara ak sàmm gi nga xam ni moom la sàmmoon boppam loolu tam bu ñu delluwaat ci alxuraan danañ fekk suñu borom di wax ni wa qul lil muminaati yaadunna min absaarihinna wa yaafasna furujahunna wala yubdina sinatahunna ila ma dahara minha suñu borom day wax ne yow yonente bi salallahu alayhi wa sallam na nga wax jigéen ñi nga xamante ni ñoom day ñooy way gëm ñi ni leen nañu damu seenub gis waaye nañu aar itam seen bopp te mooy nañu takk seenub sëgër seenub sér bu dëgër nañu takk seenub sér bu dëgër waaye nag bu ñu feeñal seenub taar lu dul la nga xam ni moom la leen ca sari am may ngir ñu war koo feeñal kon la leen sari am may ñu war koo feeñal rek su boobaa loolu nañ ko feeñal waaye lu dul loolu su boobaa nañ ko nëbb te dañuy wax ni jigéen léppam xawra la bam des xarkanam gi ak li nga xamante ni mooy ay tenqam soxna jaara ku bayi won xel ayatul quran ya bobu la mo tax kon moom daan na sàmmoonte ak bopam way daan na ci taxaw itam gën ja rafet ay taxaway te xam nga jigen tam dafa nek ko xamni magazine la bo xamni ci mom la yalla di denc li nga xamanteni ni ay sakaram denc ay sakaram te man nañu wax ni usine la xamanteni mom ni fay da fay génne di di produire lo xamanteni ni mom rek moy kiko ko mën muy jëmmi doom adam ci bopam kon dafa wara bayi bàyyi xel bopam te punya tam bu Al war ci ci. Mariama alayha salaam danañ gis ni moom day suñu borom li tax mu jox ko yonent yàlla Isa alayhi salaam mooy dafa nekkoon ku sàmmoon boppam ndax alxuraan mi ngi doon wax ni wa Mariama ibnatal Ximraan allati aadanat farjaha fa nafaxnaa min ruuxina kon ndekete Mariama alayhi salaam jox ki nga xam ne moom la ko suñu borom jox yonent yàlla Isa alayhi salaam mooy dafa nekkoon koo xam ne ku sàmmoon boppam la nekkoon ku aar woon sàmm boppam moo tax suñu borom jox ko yonent yàlla Isa alayhi salaam kon ci loolu la ñuy kon jigéen ndekete saa yoo xamante ni sàmm na boppam la ko yàlla nëbbuloo mu di ko nëbbu su boobaa kon suñu borom subhanahu wa taala dana jël li nga xamante ni mooy ay saykaram dénk ko ko loolu kon moo tax kon soxna jaara radiallahu anha bàyyi woon xel lool anam googu te mooy di sàmm boppam waaye li nga xam ni moom la ko yàlla sant ngir mu war koo nëbbu lépp mu ko euh, kon loolu moo tax euh, suñu borom defal ko li nga xamante ni moom la ko defal moom euh, soxna jaara radiallahu anha ni ki noonu tam mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñëpp dañu gis ñi taxawaay boobu rek nga xamante ni moom la soxna jaar am taxawaay boobu la ñu amoon ndax dañuy wax ni e, Seydi Alxaaji Malick Si radiyallahu an e, waajuram wu jigéen di soxna e, Faduwa Wele moom itam bokk na ci li taxoon maam Ousmane Si mi nga xamante ni mooy waajuru Seydi Alxaaji Malick jëloon ko mooy wax nañ ni da koo fekkoon ci dex goo xamante ni booba dañ daan dañ fa daan tibb xorom léegi nag jigéen ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon daan lay xorom saa yu musaana ñëw ñu ci bari ñoom dañuy wokk seen yére ngir bañ seen yére yi buñ dee dugg ci ndox mi di di tibb xorom seen yére di tooy waaye moom robb bi mu daan sol déewu ko wokk da ko daan bàyyi noonu ak dugg ak moom ci biir ndox mi wax nañ ne loolu moo tax Euh, maam Ousmane si gis ko xam ne kii de jigéen la joo xamante ni ku sàmm la te itam ku aar boppam la mu daal di koy jël mu indil ñu Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu an kon da gis ni mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum yépp dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu sàmm woon lañ ñu bàyyi woon xel lañ loolu nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala santoon loolu moo tax ba ñu indil ñu kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ ñu indil kon Seexul Xadim itam nafa euh, nafaana allahu bi barakaati ismihi noonu moo nekkoon taxawaay bi nga xam ne noonu la soxna jaara radiyallahu anha taxewon ci sammu ak ñongal li nga xamni mom la ko suñu borom sant ngir mo war koo ñongol loolu tax itam mu andil ñu shaykhul khadim nafaana allah bi barakati ismihi kon loolu nekk lu am solo lo xamanteni jigen yi war nañ ko gëna bayyi xel bu baaxa baax ci diko roy ci soxna jaara banen tam bi nga xamanteni mo ci top muy soxna jaara ak dimbulante gi nga xamni daf ko doon dimbulante ak ñi nga xam ni ñoom la nekkandaloon loolu tam bu ñu waat ci da lañ fekk suñu borom di wax ni wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal idmi wal udwan na ngeen di dimbulante te dimbulante googu ngeen di dimbulante nag teg leen ko ci ak mbaax waaye teg leen ko itam ci li nga xam ne mooy ak ragal yàlla waaye bu leen dimbulante ci dimbulante goo xam ni da ngeen koy teg ci ak noono wala ngeen koy teg ci loo xam ne dafay waral bàkkaar soxna jaara bàyyi woon na xel lool ci loolu moo tax kon dimbulante gi nga xam ne moom moom la daan dimbulante lépp da ko daan teg ci ak mbaax loolu moo tax wax nañ ni ñi nga xamante ne ñoo jamononteeg moom jamonoy sedd da daan wut uh, mat di taal di ko jox ñi nga xamante ne ñooy mag ñi ñu ciy jaaru bu dee jamono yi tàngaay muy saral am ndox ba mu sàdd mu leen ko jox ñu koy jëfandikoo kon loolu lépp day wane ni moom daan na dimbalante ak ñoom waaye dimbalante gi mu daan dimbalante ñoom ci mbaax waaye ci ak ragal la daan tege gis nag léegi sofaan bi moo am léegi ndax jigéen ñi ñu ci bari léegi dimbalante gi ñuy dimbulante day leen di yóbboo ak noono waaye da di yóbboo itam ay bakkaar ndax gis nga léeg-léeg dañuy ay nday lekk yeneen yu bari yoo xamante ni dañ koy doxali seen diggante te ñaar yooyu la muy jur rek mooy lebaloon naa ko nàngam fey si wu ma joxoon naa ko nàngam te bi ma xewlee ñëwut kon yooyu yëpp ñoom ña ngi dimbalante waaye li ñuy dimbalante ci yu bari da leen di jural ak noonoo waaye da leen di jural itam bakkaar soxna jaar nag loolu moom doogu ko def lim daan def daal mooy lim daan dimbalante ak ñoom mooy loo xam ne daf ci sàkku tuyaaba noonu yi tam la daan diflante ak ñi nga xam ni ñooy dong ngay nekkoon ci kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu anhu ndax sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nañu bàyyi xel ni ab jàngalekat la woon ab jàngalekat la woon yoroon daara joo xamante ni ju mag la nga xamante ni mën nañoo wax ne ñu ëpp xam-xam ci réew mi jaar nañ ci daara sëñ Mbàkke Mor Anta Sali jooju nga xamante ni bu ñu ko doon misaal dañuy wax naan mooy université bi nga xam ni moo gën a rëy ci réew mi moom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu anhu mooy ki nga xamante moo ko yoroon te loolu dina ci doy sëkk saare bayit woowu nga xam ne Seexul Xadiim waxoon na ko jëmale ko ci moom ayaa man bahal ahkaami yaa xawsa dilili ayaa xutbu yaa naamuusu yaa xawsa sal jiili yow mi nga xamante ni yaay balluwaayu xam-xame xikam yi yow mi nga xamante ni yaay dimbali képp koo xamante ni dem na ba ak réeram jéggi dayoo kon loolu la muy tegtal rek mooy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nekkoon na jàngalekat boo xamante ni bu mag la woon waaye daara jooju nag ña nga xamante ni ñoo fa nekkoon di ay donga moom soxna jaara da daan jëflante ak ñoom jëflante goo xamante ni gu rafet la waaye di dimbalante ak ñoom ci dimbalante goo xam ni da koo teg ci aay bi muy wa taawanu alal birri wa taqwa kon soxna jaara ci loolu la daan dimbalante ak ñoom te loolu kenn ci dong yooyu nga xam ne ñoo nekkoon te daara ja moo ko seede muy koy wax maam Samba Mariam nga xamante ni borom xam-xam la woon taalif na itam benn téere boo xam ne daf ji doon tagg soxna jaar tam tàmbalee xamdan li ma jaala boo demee ci sëñ Moussa Ka mi ngi wax ni maam Samba Mariama Madan raw ci mu laf xamdan li man jaala moo ko taalif lan la wax mooy dafa wax ni noonu na bagaan nga woon fa soxna jaara mooy reerukaayu bépp dongab daara nee na bagaanu soxna jaara googu mboolem dongay daar ya nga xam ne ñoo nekkoon ci kër sëñ Mbàkke Mor Sali radiyallaahu anhu ñoom ñëpp ca bagaanu soxna jaara googu la ñu daan naane lañ daan lañ daan reere moom lañ daan reere kon loolu lay tegtale ni moom soxna jaara kat euh, mboolem donga ya nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëpp moom kon ci bagaanam googu nga xamante ni moom la yoroon ñoom ñëpp ca bagaan gi lañ daan waaye ndax ci loolu la yam mu ni déedéet mbànnam ma mës la day te dañ daan rootaan mbànnam ma mës la day te dañ daan rootaan mooy naanu kaayub gaaya dañ koy seetaan mbàndum soxna jaara moom itam musa dëy mooy musa ñàkk ndox musa ñàkk ndox benn yoon te booba kat dafa nekkoon jamono joo xamante ne dañ daan rootaani nga xamante ne ñoom mboolem donga ya ca lañ daan naan si nga xamante ne dañ daan ñëw di ko seetaan si ngir di ko yéem moom mbàndum soxna jaara moomu kon loolu tam dafay tegtale ni moom kat bàyyi woon na xel lool aay boobu suñu borom wax ne na ngeen dimbulante waaye dimbulante googu ngeen teg ko ci ak ragal yàlla waaye ña nga xam ne ñoom la bokkaloon kër sëñ Mbacke Mor Anta Sali muy eh, soxna Anta Ndiaye Mbacke ak ñëpp noonu leen bàyyi woon xel moo tax tam eh, sëñ Moussa Ka nga da koy wax ca yooyu wax ni nuy ji ay dëkkandoo xam nuy ji jëkk jigéenam soxna Anta Ndiaye mbokkam taala Anta moom maaram nga xam ni su nuyoo sëñ Mbacke Mor Anta Sali ba noppi dafay dem nag ci ñi nga xamante ne ñoom la bokkal kër gi ñi bokkal kër gi ñoom ñëpp mu dem saafoo ante ñoom ak ñoom nuyu leen dem nuyu ji soxna Anta Ndiaye Mbacke mi nga xam ni mooy wajuru maam Cheikh Anta radiallahu an te xam nga soxna Anta Ndiaye Mbacke moomu Ibrahima awañ ak moo ko jur maam jur ko nga xam ne kon loolu day gën a teg la itam nekk gi nga xamante ne ñoom ñëpp nekk nañ ko benn ndax xam nga soxna jaara itam way juróom wu jigéen mooy soxna asawaalo soxna asawaalo soxna bu saa ko jur maam ma xaram jur ko euh, soxna Anta Ndiaye moom nga xam ne mooy wajuru maam Cheikh Anta moom itam Ibrahima awañ ak mooy way juram Ibrahima awañ ak maam ma xaram jur ko loolu moo tax sax euh, euh, maam Cheikh Anta day am wet goo xam ne rakki sëriñ bi la ndax ñoo bokk way jur waaye am na wet goo xam ne ndiyaay lay doon ci sëriñ bi kon loolu tam dafa nekk loo xamante ni lu mat a bàyyi xel la soxna jaara bàyyoon ko xel lool waaye nekku mu nekkoon tam loo xamante ni lu mu daan doxale la ci ñoo ñu nga xam ni ñoom la bokk bokkuloon kër ñu nekk itam nekkin woo xamante ni rafet wu mat a bàyyi xel waaye di wujje ci lu baax mu woote loolu ak jamono tey yi nga xamante ni jigéen ñi li ñuy wujje mooy ci ab safaan euh, kon loolu soxna jaara jàngale na ci bind yu am solo yo xamanteni ni ñom ñoom jigéen ñi war nañ ko gëna bàyyi xel bu baaxa baaxa baax ci wet gogu waye beneen tomb bi nga xamanteni mom lañuy mujjé te moy tomb bu am solo moy ay jikko mom soxna jaara radiyallahu anha alquran daf doon wax ni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladina yunfiquuna fi darai wa darai wa kaadimina alqayda wa haafina an annas wala yuhibu almutinin suñ borom dafa wax ne na ngeen gaaw ngeen dem njëkklante ji jëm ci ak njëggal goo xam ne day bàyyi ko ci seen borom ak aljana joo xam ne yaatuwaay ba day na ni asamaan ak suñu borom nee na nag loolu waajaleef na ko ñeel ñi nga xamante ni ñooy way ragal yàlla yi mu waadat mu muttaqin ñu ragal yàlla lañ waajal aljana jooju mu leeral nag ni ñooñu ñoo ñan mu ni alladina yunfiquuna fi saray wa daray mooy ñi nga xam ne dañuy jël seeni alal di ko joxe ci jamono yo xamanteni jamono yu tar la jamono yo xamanteni yu métti ak jamono yo xamanteni xewal xéewal bari na yépp ñoom la ñu dañuy jël seen alal yoy diko ko ci li nga xamanteni moy yoonu yàlla waye nak ci loolu lañu yam dedet wal kaadimina al qaiza dañu nek ño xamanteni dañuy war na mer nga xamanteni ni leen def lu lu leen nakadi nakadi nakadi duñu duñu duñu du xam ni ñom kat amna lu leen nakari ndax kenn du ko mëna xam ci ñom ngir lan mer momu dañ koy na mel ni ño xamanteni ni meruñu suñu borom ni ndax fofu lañu yam mu ni déedéet wa wahafi xaafi nas waye ñom de dañuy jéggel ñi nga xamanteni ñoy nit ñi ndax yalla kat dafa bëgg ñi nga xamanteni ñoy way rafatal kon lool di jikko yo xamanteni yu am solo la soxna jaar nak won ko xal bàyyi won xal lool jikko ak melokar yo nga xamanteni ni suñu borom subhanahu wa taala mi koy andi ci bir aya bobu nga xamanteni mu nekkon ku rafeti jikko ci teunk bu gatt nga xamanteni buñ doon wax ay jikkom rek dañ nan comme dañuy delluwaat ci suñu yaay Aïcha radiallahu anha biñ ko laaje ni ko lan moy jikko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kaana xuluquhu quraana sallallahu alayhi wa sallam ay jikkoom léppam alquran la ni ki noonu tam soxna jaara radiallahu anha bu ñu wax dañ naan ay jikkoom léppam alquranul karim la nga xam ni ka annaha quranun tamsi dafa mel ni moom soxna jaara alquran la joo xamante ni ju jóg di dem la te mooy lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy santaane loola daf caa taxaw tem waaye lépp loo xam ne yàlla daf ko aaye su boobaa loolu mosu caa jaar benn yoon radiyallahu anhu doon wax ni ya baaxu tur buso te baaxu askan yag nañu siyaare gënd di yonnen ni ko yow day tur wi nga yor dafa nek tur wo xamanteni wu bax la waye nga bokki ci askan wo xamanteni wu bax wo xamni yag nañu nañoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam judd te baax way jur ko xencu say si du gis dul ngor ni ko yow dal da nga nek ko xamni tur wu rafet nga yor waye am itam ay wayjur yo xamanteni yu bax lañ te baax yooyu waajur itam dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ndax day dimbali nit ki ndax nit ki saa yoo xamante ne dafa bokk ci ñoo xamante ne ñu baax lañ su boobaa dañuy séentu ci moom ak baax loolu moo waral sayyidatuna Mariama alayha salaam ba ko mbokkam ña yedd ngir defe dafa mooy yàlla lañ ko wax mooy sa baay ak sa yaay day xamuñu leen ci ay caaxaan maa kaana abuki imra abu in wa maa kaana ummiki baxiyan kon soxna jaara suñu borom defaloon na ko ci askan woo xamante ni wu baax lañ mun ko sëñ bi saaka teg ci ne ko maam yaa nga gàddaaye gedee ki toog gedee ki tooro diide gore leen te jubóog lam tooro ñoom day la taxoon wuñu ak buur boobee nga xamante ni moom la ñuy wax lamtoor mooy dañoo amoon diine am li nga xamante ni tam mooy ngor nga xamante ni yooyu ñaar yooyu dafa nekk yu am solo muy diine ak li nga xamante ni mooy gore mun ko yow nag say maam naka jekk ci loolu rek lañ mësoon tënku muy diine ak li nga xamante ni mooy gore mëseefu leen a jiitu ci wilaaya ba alquran ba xam-xamub diraaya ñoom day nekk nañ ñoo xam ni amul kenn koo xam ni mus na leen a jiitu ci li nga xamante ni mooy wilaaya wala nga jiitu leen ci li nga xam ni mooy alquran wala nga jiitu leen ci xam-xam bi nga xamante ni xam-xam bu am solo muy xam-xamub diraaya dawuñu fuukaree mbirum wàll ngir ay sariif lañ ñooy doon ay aliyu nga xam ni moom soxna jaara ak tàllalaam ñaar wi yëpp boo ko day dem ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax day dem ba ci xadan mi nga xam ni mooy doomi Fatima mi doom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam boo toppee càllal ak soxna jaara day ba ci loolu moo tax kon mu ni ko ngir ay sërif la ñu ñooy doonay aliyu léegi nag euh, turam woowu moom soxna jaara dafa am ay jikko yu mu ko jox dafa am ay jikko yu am solo yoo xamante ne jox na ko loolu moo tax aw tur itam nekk loo xamante ne lu mot a bàyyi xel la ci képp koo xam ne yaa ngi tudde doom fexeel ba tudde ko tur woo xamante ni nii tur bu baax la ndax loolu moo tax sa sëriñ bi doon wax ni abu jaxlin li ko tax a alku mooy genn wàllug turam wa genn wàllug turam wa moo ko yóbbee alku muy abu jaxlin loolu jaxlin googu mooy li nga xamante ni moo ko yóbbee eh, alk gi nga xamante ni moom la alku kon tur itam nekk loo xamante ni lu mat a bàyyi xel la lool soxla jaar nag turam woowu mu amoon am na lu mu ko jox ndax bàyyi la xel ne itam ni aw turam dëgg moo nekkoon Mariama waaye li tax mu tudd jaaratullaahi te mooy jigéen ji nga xam ne dafa dëkkaaleeg boromam mooy nangul gum nanguloon boromam subhanahu wa taala di ko jaamu loolu moo tax mu am mm, euh, daraja jooju te mooy soxna si nga xam ni dafa dëkkaale ak boromam subhanahu wa taala léegi turam woowu nag muy jaara dafa am lu mu ko jox jiim gi lan la ko jox mooy tax na mu jub tax na itam mu jubal tax na itam muy jàpp tax na mu julli tax na muy jàng tax mu joxe kon yooyu bokk na ci xaraf yi nga xamante ni moo njëkk ci aw turam muy jiim loolu la jox soxna jaara moo tax sëñ Moussa Ka wax ko ni ko jaara maam jaara sa arful jii mi jox na la jikko yu rafet yu yéeme jub nga jubal nga jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleeree jolli nga xam ni kon loolu bokk na ci li nga xamante ni moo ko may mu mën a am yooyu daal koy wax ni ko nag jikko yi nga xam ni moo nekk ci jiim te nekk jikko yoo xamante ni baaxul yooyu dem soxna jaara moytandiku woon na ko te yooyu mooy lan mooy jëw ak euh, jànni ak jaye ak jayu ak di dem di dem ci fi nga xamante ni mooy jay yi te mooy marché yi dem di jaay yi mun ko yooyu nag yow soxna jaara moytu woon nga ko moo tax mu ko te jikko yi may bëgg lim amoo leen jigéen ñu bon ña ko yoroon yaroo leen jikko yi nga xamante ni moom lay bëgg lim de yow soxna jaara yoroo ko woon te jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon jigéen ñu bon ña ko yoroon yow soxna jaara yaroo leen loolu mooy lan dëewu la jëw doo jànni dëewu la jaye do jayu do jaayo ka jaayi ci jayi kon loolu di lu mata a xel waye mu teg ci ni ko nag yaa suubu yoonu dem jana mak jahim ni ko yow dal fi nga jaar mo yonu janatu naxiim kep ko xamante nak nag la su boobaa fa muy jëm rek moy jahannama ba fa nga moy jahim legi nak raagi am na lum lu mu ko jox ci ay jikko yu am solo motax tax sëñ Musaa sa raagi taxna baragal nga yalla rafet rafet ndortu te xam nga yalla ni ko yow daal sa raa gii lim la yóbbee mooy nekk nga koo xam ne ku ragal yàlla nga subu subhanahu wa taala te loolu yaa ngi ko amee ci sa xara foofu nga xamante ni moo nekk ci tur bi di raa waaye tax na itam nga nekk koo xam ne ku rafet jikko nga te rafet jikko dafa nekk lu am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaq man de dañu maa yabal ngir ma war a mottali li nga xamante ne mooy té da ngay jikko yi tay suñu borom bi mu koy tàgg ci loolu la ko tagge muy wa innaka la ala xuluqin azim seexul adim tam loolu la ko waxon labista siyabal majdi wal fadli wal ula wa fika min al aqlaqi ma ajjal kulla yow day sol nga yéeree tedd nga ak ngëneel ak kawe te ay jikko nekk na ci yow yoo xam ni ñëpp lott nañ ci am jikko yi nga xamante ni moom nga làmboo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jikko dafa nekk loo xamante ni lu am solo la te rafet la ko tam nekk loo xamante ni lu am solo la rafet njortu tam nekkati lu am solo ndax xam nga dafa am lenn ci ñaaw njortu yoo xam ni day jural borom bakkaar suñu borom mi ngi ko doon wax inna ba'da dhanni ismun am na yenn ci njort yoo xamante ni nii bàkkaar lay jural boroom kon rafet njort dafa nekk lu am solo soxna jaar nak dafa nekkoon ko xamanteni ku rafetoon njortu la waye nak safan yi nga xamanteni mo nek ci arafu ra gogu mom soxna jaara mu ku won ko te lolu moy lan rew reuy eh, reer eh, manam rew ak eh, rew ak reuy ak rer ak ak rambaaj yoy yep soxna jaar daf ko moy tani moo won mo do Ka musa kaniko rewo rëyoo réeroo neenaa la daali doo rummi doo rambaaje bu sa baali nga xam ne kon yooyu tam di ay jikko yu am solo yoo xamante ni soxna jaara lamb woon na ko waaye yii nga xamante ni ay jikko yu baaxut la muy réew ak rëy ak réer ak rumbeeg rambaaj yépp soxna jaara nekkoon yoo xam ne yu mu wanoon ginnaaw la euh, kon loolu nekk lu am solo loo xamante ni ay jikkoom la yoo xamante ne làmboo woon na ko moom soxna jaar radiallahu anha mbokk yi kon xam naa ci tënk bu gàtt rek foofu la ñuy taxawlu incha allahu taala Euh, di jaajëfal bu baax a baax mboolem mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ñu doon bàyyi xel fépp fu ñu mën a nekk moo xam ci réew mi ak ci réew mu nekkoon euh, jotaay boo xamante ne plateau boo xam ne dañ ko jëmale woon soxna jaaratullahi maam mariama radiallahu anha ngir waajale ko bis bi nga xamante moo nekk suñu kanam yàlla ñu suñu borom àggale ak jàmm lépp lu ci jëm ñu sant ko yàlla dëng nag ñu jéggal ko mbokk mi nga xamante ni moo ko doon jéem li gën ci noonu yàlla ñu suñu borom defal te déppale koog li ñu gënal wasalaamu Mouride TV askan bi yëpp la fi nekkal parce que jege na chauffeur si jege na commerçant yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal si kaw ca kanam ci lu baax daal. wa ala kulli wa ala kulli haal askurukum jamian ala def ci Mouride TV mooy ñaanal leen te encouragé leen ci li ngeen di demee nii parce que lii lu am solo la.